يا همة الشيخ الرجاء أنت وأنت المرتجى وبلغي لنا الحجى يا همة الشيخ الأبي mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu waa Senclic ñi nga xam ne ñoo ñu dalal tey ngir ñu waxtaan ci Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass ci jundam dundam ci jaar-jaaram ci kàndoom ak baay ci taalibe gi mu nekkoon taalibe baay ci njeexital yi nga xam ne bàyyi bàyyi na ko fii te mi ngi continuer di ko jëmbat ci taalibey Cheikh Ibrahim Niass maa ngi tudd Mouhamad Nouruddin di doom ci Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass eh, di kontaan lool ci dalal gi ngeen ñu dalal tey di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq ak barke ci lépp loo xam ne fas yéene nañ ko wax waxtaanee tey ak relation Baye ak Baba lu yaatu la nar a nekk lu yaatu lool loo xam ne yaakaar naa émission yi ay émission yi émission du ci doy ndax euh, Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu euh, moo jur Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass suñu koy laaj ne ko dañoo bëgg nga wax ñu yaay kan sa jur mu ne man man maay Amin laa tudd doomi Cheikh Ibrahim Niass waaye relation ak Baye relation wu way jur la ak doom relation wu ndonoog yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam relation wu ku baax ak ki mu bëgg a baaxal relation wu yarekat la ak kenn ci nga xam ne bëggoon na leen yar bañ nekk njiit njiit njiit ci kaw suuf relation wu la boo xam ne balaa baaba di juddu sax la tàmbali ndax Baye waxoon na leen ci lettre bi mu leen yónni woon ca Qahira ne leen talabtukum lil fil ghaybi awliya wa sammaytukum bi mujarradi ma raaytukum bi habibi bi habibi wa habibillahi daal di lim seen tur ba yegg si ne mu ne aminal waxyi aminal waxyi googu bàyyi ne sàkku naa leen ngeen nekk waliyu ca boobu yéen a ngi ci xëy kon relation bi tàmbali na sax balaa ma juddu balaa moo juddu ci la bàyyi sàkk woon am njaboot ñoo xam ne dañu nekk wali yàlla yi ommat nit ñi yóbbu leen ci yàlla Cheikh Mouhamed Amin juddu bokk ci jabaay ñu nga xam ne bàyyi daf leen daan toppatoo ndax bàyyi dafa bëggoon xale gu gu gu mucc ayib xale bu buy dox doxinu mag Cheikh Mouhamed Amin juddu Euh, way juróom di Seyda Sarr teel a génn àdduna mu nekk ci ron Cheikh Mouhamad Cheikh Ibrahim Niass bàyyi ko jàngal euh, mu mokkale alquran ci euh, madrasatu rabbani gannaaw loolu bàyyi dalal ko téere xam-xam yi muy jàng mu bokk ci ci ñi nga xam ne bàyyi séentu woon na ci ñoom aveniru dëkk bi ba nga xam ne am na yu bëri yoo xam ne daan na ci mën a noppi sax moom daanu ko ko may ndax baaba mi ñu wax ne ba ñi nekk gone bés dafa euh, bëggoon a dem cinéma rek pour xam luy cinéma ndax ni mu koy dégg bi nga xam ne moom la daan jàngal Cheikh Ibrahim Niass téere bi jot bàyyi du ko laajte mu ne ñi ñu koy laajte di laajte euh, ba sax rajo jumaa ji lañ mujjee jël oote di laajte baaba la fekk moom dafa àndoon ak ñenn ñi dem cinéma baaba mu ne ba ñibbisee bàyyi lim ko wax mu ne ko ndax dangaa bëgg a tas sama yaakaar te loola euh, bàyyi ci boppam waxoon nañu ne aarif war na dem cinéma wala benn yoon sax ngir cinéma fàttali ko mbir fàttali ko ne dana gis dara te fekk foog ko am fokk lu am defe ne am na te fekk amul dégg nga waaye nag ku la mënta may seetaani benn film rek du la may yeneen yi baaba nekk na Najib nekk ci ron Cheikh Cheikh Ibrahim ba nga xam ne man maa ko laaj bés na ko maa ko laaj bés na ko sëriñ bi dama bëggoon nga wax ma ñan ñoo euh, impacté ci yow ñan ñoo impacté ci sa dund mu ne ma ci nga ci ñi nga xam ne ñoo waroon Cheikh Ibrahim Niass mu ne ma kenn man bàyyi rek man bàyyi rek moo tax bés sax wax na kenn na ko man sama chance mooy ne man bàyyi rek laa laa bëggoon bàyyi rek doy na ma utaluma ko ndend utaluma ko kenn ku ma koy dendale mu màgg ci roonam jàngal ko yar ko ba yebal ko mu dem Maroc mu jàngi gannaaw loolu mu yebal ko mu yebal ko mu dem Qahira jàngi foofa ci la ko joxee lijaasa bi njëkk mi njëkk bind ci xalima loxoom bind ko ma baadu képp koo xam ne dafa bëgg a tarbiyu xam yàlla euh, dog yi nii nangam ak nangam ak nangam ak nangam lim yëpp na ko nag yii nag doy na ngir képp koo xam ne bëgg na yegg ci yàlla gannaaw loola tamit mu bindil ko li jaasa bu mag bi li jaasa bu mag boobu noonu nag moo kaste li nga xam ne moom mooy relation moom ak Cheikh Ibrahim dafa dafa dafa dajale li yi mu am yëpp te neew na ci njabootu Cheikh Ibrahim ñu ko am dafa naa moom la ak Seyda Roqeya mooy ñi nga xam ne Baye bindal na leen ko jox na leen li jaasa yi mu am yëpp mooy li jaasa yi douze li jaasa yi maam alaaji amoon boole ko li jaasa yi mu amoon moom yëpp mu dajale ko def ko ci benn ne ba Cheikh Mouhamadul maa ngi la jox amaana bi na ko jox dayoom dégg nga ba te ñu dajee ci kanam yàlla ci kanam yenentu bi ci kanam Cheikh Tidiane dal di ko wax nag na ahimu bidaadin ma xayitu wa amut wakkil bidaadin ma ñahimu bi habaadi maa ngi jeex ci yenentu bi sallallahu sax gannaaw bu ma fi jógee danaa dénkaane mbëggeel bi keneen mu wutuma te moom mooy Cheikh Mouhamadul Amin te mi ngi waxaat feneen ci wéyam yi ne usaajiluhum ma ishtu fiika wa in amutu usaajiluhum far'i wa fiika yusaabiqu ma ne maa ngi rawanteeg woykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di di jiital jiitanteeg ñoom di jël raw gàdd gi waaye daan bu ma fi jógee dinaa sama banqaas man sama banqaas dana ñëw di continuer mbëggeel googu noonu di xiccoog di rëjëriloog yi loo bi sallallahu alayhi wa sallam ñu seetlu ne njabootu Cheikh Ibrahim néew na ñi ci woy kon xëy na wax jooju tamit Cheikh Mouhamadul Amin lay juju nga gisoon ne Baay tamit daan na ko toppatoo lu bëri nga xool ci rabbal ibaadi mi nga xam ne Baay mi ngi mi ngi ci wax ne rabbal amini aati bil amini kulla mataalibi li kulli xiin yow boromu lamin jox ma jox ma ci barkay al amin muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama càkkuteef yëpp ci bépp waxtu bépp jamono mu ne ñu bari foog ne Lamine lay wax ñëwee foofu noonu bàyyi mu ne déedéet waxuma Lamine Gueye de sama doom lay wax kon nag kooku xam nga yàgg naa toppatoo njabootam nga xam ne baaba sax bu daan ñëw vacances bàyyi maar nettali nañu ne am na bés bàyyi daanaka dafa toog ba xaaju guddi di xaar ñu foog ne lu ne la ndekete baaba mi ngi ko wax ne wàcc na dakaar mi ngi waaj a yegg si mi ngi war a ñëw ñëw ñëw dina moom lay xaar ndax nama ma ngi ko nam kon nag kooku ku sëriñam toppatoo la gërëm ko tamit ci dundam jox ko eh, lijaasa boobu dénk ko ndénkaane bëggee la yonent bi sallallahu alayhi wa ba nga xam ne moom ci boppam dafa wax ne xalila yeku fallawma inna hawa daadi tamakkana min qalbi ala muqtadal ahdi mu ne ay yéen yeddaakoo ni yéen samay xarit yi nga xam ne yow ma yéen yéen may yedd ci bàyyi mbëggeel gi mbëggeel ak daadi gi nekk ci man dafa moom sama xol bi ma ngir lan ngir dénkaane bi ma bàyyi dénkoon mbëggeel ga moo tax ma sax ci mbëggeel googu tamit ci la wax ne Euh, dinaa bëgg yenent bi sallallahu alayhi sax ci dinaa ko donnaloo ñi ma wër muy njaboot muy njaboot ak ruux muy njaboot ak jëmm ba te ñuy dajee ci kanam yenent bi sallallahu alayhi relation am digganteem ak bàyyi li bàyyi def ci moom waaye gannaaw loola nag dafa nekk ab taalibe taalibe bu nangu ne benn sëriñ moo am mooy Cheikh Ibrahim taalibe boo xam ne dafa gis ne bépp muqaddam bu dul bàyyi bépp jiit bu dul bàyyi rek coxeur nga ci car bi Cheikh Ibrahim mooy ki nga xam ne mooy dawal ba nga xam ne dundam bi yëpp amul lenn loo xam ne bëgg na ko lu dul bëgg-bëggi bàyyi li bàyyi waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru baidu bu yonent bi sallallahu alayhi wa eh, laxasee ma laxas bu sippee ma sippi moom tamit noonu la wax dim ni yen saara alxalilu surtout waraahu wa in xalla yowman fil masiru baid bàyyi la topp ci léppam bàyyi la topp ci melokaanam ba nga xam ne sax nit ñi buñ ko daan buñ koy buñ koy mellalee bàyyi dafa ne kenn du bàyyi lenn du bàyyi bàyyi rek kay bàyyi ndax lan ndax eh, màggal gi màggal Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ndax cofeel gi mu am ci moom tam dëggu ci moom digganteem ak bàyyi tamit wane ne ko wane na ko fu nekk képp koo xam ne ñëw na ci moom bàyyee tax mu lay considéré bàyyi tax mu lay considéré ba nga xam ne nit mën na koo def lu nekk sax mu noppi ci rek ngir bëgg gim jàpp ne da nga koo bëgg Cheikh Ibrahima te moom boo jiiteelee bàyyi ci mbir mi comme li bàyyi waxoon ne man ku ma nax ci yenantu bi ma nangu nit ki moom it tamit ku ko nax ci Cheikh Ibrahima nangu ku ko nax ci Cheikh Ibrahima nangu ba nga xam ne mbiru bàyyi moom la dox dundam bi yëpp nekkoon na ci diplomatie bi daanaka vingt six ans waaye ñu nar ko nommé ambassadeur liggéeyu Cheikh Ibrahima oo ko moo tax mu mën a toog ci kanamu ay taalibe waxuma la ci kanam ay doom ci kanam ay sëriñ mais ci kanam yi taalibe na leen yenn yi tànn ndax Abdoulaye Abdou Diouf Abdoulaye Wade daf maa nommé ambassadeur ndax ma dem walla ma toog taalibe yi ne ko na toogal mu ne ko nag jeex na ci la jële retraite ñib si nekk senegaal bàyyi tamit jaraloon ko mu dem ci ku nekk dégg naa ñu ne Seydi El Hadj Abdoulahi El daan wax ne lemin moom moom xanaa moom yërëmul boppam moom gone gu ndaw sax bu ko ooyee zikar mu aussi ci bàyyi baaba mu ne nag ñun loolu mooy suñu mbir loolu rek lañ am moo tax ku ñu oo ci bàyyi ñu aussi la daan nañ nekk dakaar di dem géejawaay di dugg car rapide ngir mën a yegg ci zikar ak tudd yàlla ak bokku taalib bokk ak taalibe yi tudd yàlla gi daan nañ fanaan ci ay géewi géew jóge Louga ñëw nekk jaar ci juróomi conférence benn taalibe bàyyi rek gannaaw bu ñu bu kër gi ñëpp a ngi sonn benn taalibe bàyyi rek war a tax tamit baaba dugg ci néeg bi rek génnaat ne man am na kenn koo xam ne daf ma yëgaloo ngénte li daal foog ma dem fa génn daal di dem taalibe bëggeel bi mu bëgg Cheikh Ibrahim ak topp gi mu topp Cheikh Ibrahim ak gis ne Cheikh Ibrahim moom mooy njiit ci lépp moom moo tax muy nangu loolu yëpp moo tax sax nga gis yaramam bi lim ko yenn ci daanaka juróom fukki at yoo xam ne daanaka nit ki noppalu ci moo tax yaram bi sax xaw a diis xaw la woon nii ndax yaram euh, wa ida kanat nufuusu idaman taibat fi muradiha al ajsam mu nekk xol yi bakkan yi bu fekkee dañoo rëy lu rëy rek lañuy ñuy yootu kon jëmm yi dañuy sonn ci jot càkkuteefu bakkan boobu noonu ci jot càkkuteefu mbindeef boobu noonu Cheikh Mouhamadul Amin moom yar gim yar doomam gi mooy ni bàyyi daan yar moom li bàyyi daan def moom la def muy dundam muy njabootu ruuxu muy njabootu jëmm yemale leen képp ba nga xam ne dafay mel nii la dénkaane bi bàyyi waxoon ca ba muy wëri ca Mali kenn koo xam ne bàyyi moo ko dénkoon mu ne tiflun bihi waaliduhu aw saani wa daaka amron taalama ashjaani mu ne maa ngi wër nag tukki gi nii dara waralu ko lu dul kenn koo xam ne sa bàyyam moom ma ko te man dénkaane moom yàgg na maa ni ki noonu moom it dafa njàpp ne njaboot ak ruux ak njaboot ak jëmmu yépp ndenkaane yàlla la waaye ndenkaane yonent bi la waaye ndenkaane Cheikh Tidiane la waaye ndenkaane Baay la te daf ko war a sàmm ni mu waree euh, musta nangu ñu def lenn loo xam ne uute na li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima du mbiram bëgg àdduna du ñàkk bëgg jàng du yaafuus du dox ci lenn loo xam ne du ñàkk fayda la ba nga xam ne am na ay benn téereem boo xam ne masaadarul xikam la ko tuddee daf cee dajale li nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima Niass euh, moom la leen Cheikh Ibrahima Niass daan dénk ba ñu nekk gone bayti yi ñu njëkk a jàngal ñun liñ ci war a xamee moom mooy ne góorgóorlul fàggul sa bopp ëllëg xam ne ëllëg bi ngay am ëllëg boo mënti bëgg rek boo ko commencé wu tey du ci yegg mu ne kun ibna man chita waktasib adaban yugnika mahmuduhu an innasabi mu ne inna alfata man yaqulu ha anada laysa alfata man yaqulu kaana abi daal di ci teg moom mu ne baaba la mi mu ne nekkal doomi ku la neex waaye nag na nga am yar na nga am xam-xam na nga am teggin mu ne yar googu noonu ak xam-xam googu noonu ak teggin googu dana la doon doy walis bépp waaso boobu nga askanoo bépp askan boo bëgg askanoo rek yar googu dana la doy mu ne as cam dëgg góor yàlla dëgg mooy ki nga xam ne mooy wax ne man maa ngi nii paa ki wax ne sama baay Baaba Lamin nekkoon na moom da cee teg baatu Baaba Lamin de yàqoos na waaye pour ñun ñu xam ne xam lim ci jub lii mooy lim ñu njëkk jàngal gannaaw bañ tari alquran mu ne moom it lii lekkoon kon bàyyi njëkk a jàngal teg ci mu ne taallam fa laysa almaru yuladu aaliman wa laysa axu ilmin kaman huwa jaahil jàngal ndax nit ki du juddu rek nekk boroom xam-xam te boroom xam-xam mënta bokk mukk ak jaahil mun ñoo bokk yar googu noonu nag moom la baaba def ci njabootam gi moom la def ci njabootu ruux gi njabootu jëmm gi nga xam ne euh, dafa toppatoo seen mbir lu ci gën a tuuti la ci topp doon bu doon togg da ngay naan day toppatoo xorom si toppatoo kaani gi lépp la toppatoo ngir ñu baax ngir képp kuy askanu ci moom baax daan na wax ne man képp kuy ñëw ci man kuy ku bokk ci sama mbo mbooloo bëgguma di dégg mbóosóor bu jóge ci bëgguma di dégg benn mbir bu ñuy bu ñu lay askanale loo xam ne rafetut yaa ngi dégg ba nga xam ne tamit fiir na ci bëgg na njaboot ak njaboot gi bëgg roox njabootu roox ak njabootu jëm ba nga xam ne ku ci sori lu yàgg te gisu la sax dana la won ne mën ci mën nga bokk ndax saa yoo dajeek moom mu wan la ne géej naa la gis géej naa la gis nag mooy toppatoo naa sa mbir naa sa mbir mooy bëgguma sa dara ump ma bu sa dara umput nag sa sëriñ lépp loo xam ne lu rafet la dana ko continuer gën ko eh, ji ci yow lépp loo xam ne lu ñaaw la dana ci dana la ko fanqal ba nga xam ne doo nit ñi dootuñ ko gis ci te képp ku askanu ci moom te def loo xam ne àndul ak Cheikh Ibrahim ñeme na toog ci kanamu nit ñi wax na la yow li nga nekk wala mu bokkoo ci man comme ni ko Baye waxee ne bu képp koo xam ne nangu na ñi mooy yàlla ci sa géew na ngeen xam ne génn naa ci moom te duma génn ci moom lu dul Cheikh Tidiane génn na ci ñoom yonent bi génn na ci moom sallallahu alayhi wa sallam mu mu yar nag ni ki yaru Cheikh Ibrahim yar ci jàngale yar ci jukkoom moom ci boppam ci tabeem ci mbaaxam ci oyofam waaye yar tamit ci jàngale téere yi ndax baaba bokk na ci doomu baay yi nga xam ne fële ci Dakar mi utu xalifa bi géew yu bari daan na fa firi ay téere dégg nga daan na firi téere ci école Cheikh Ibrahim Sall rahmatullahi alayhi am na téere yi mu daan firi ci kër ga ñoom taaj daan firi téere fiq yi daan jàngal nit ñi ca jidda daan jàngal téere yi ba mu ñibbisee tamit mu continuer ko kaset yaa ngi fi yaa ngi dégg eh, daan yare comme ni Cheikh Ibrahima daan yare yaral boppam am na ñoo xam ne moo leen boppam am na ñoo xam ne muqaddam yi mu yar ba mu gërëm leen ñoom la leen di bàyyee ñëral leen muy njabootam muy njabootu Euh, euh, mbokkam yi yëpp ñu ci ñëw euh, yar ñu tamit ci bëgg lu baax di fugg lu baax waaye yar ñu tamit ci tudd yàlla tudd yàlla goo xam ne moom la jàpp ne moom mooy màndargaam mbëggeel la ko bàyyi màndargale waaye yàlla moo ko màndargale moom tudd yàlla ba nga xam ne dem nañ bay naan baaba allah allah ndax moom lañ ko xamee dëgg-dëgg ndax tudd yàlla la sax moo tax mu ne Euh, danaa sax di tudd yàlla dinaa ko dondaloo sama njaboot yi ba fii ba buuf tamit di yar ñu ci tudd yàlla yar ñu tamit ci oyofal àdduna yar ñu ci to oyofal àdduna bañ koo yenu bu fekkoon ne àdduna dañ koy sàkku ni kon defe naa opportunité yi ñëw ci loxoom dina bàyyi sax mun naa bañ a ñàkkatiku ku ñàkk waaye dëddu àdduna di jëfe eh, ndigal bi ko bàyyi dénkoon te sànq dama ko tëboon ndax bañ a guddal kii bi waaye daf ci am ay bayti yoo xam ne dafa mel ni baaba dafa jël bayti yooyu noonu bàyyi wax ko ci moom jël bayti yooyu noonu daal di ko def moddu deviyam ndax bàyyi gannaaw histoire bi ma nettali noonu dafa am kenn ci naar yi koo xam ne dafa ñëw ci baaba histoire u cinéma bi Mouhamadul Kabir li ñuy wax Mouhamadul Mouhamadul Kabir Kors moo wax xelaloon baaba na ko comme ça jur dafa bëgg way dama bëgg nga ràbb ay bayt nga jéggalu ko ci dégg baaba daal di ràbb ay bayt dal di ci jéggalu baay alhamdu wa shukru maa lillahi summa salaatu summa salaatu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi al athaari wa baadu fal maqsuudu yaa waliyu an taxfira damba li dal bunayi astaxfirullah al azim al qadir al qaafiri dambi li kulli qadir mu ne maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy mooy ngën di mindeef eh, gannaaw loola maa ngi jéggalu maa ngi sàkku njéggal yow waliyu yàlla bu màgg bi maa ngi lay sàkku nga jéggal sa doom ji maa ngi tuub tuubal yàlla mi nga xam ne moom mooy aji balaakoon bépp ñaawteef bépp bàkkaar bàyyi daal di ko tontu ne alhamdu wa shukru maan wa daawa li dal bu ne yi fii xalan wa jalwa raditu anka wa xamidtu lbaaqi laa zilta najli fi ximaahu lwaaqi iihi ayaa bunaya unxu naxwi xarir culuma alsharci bacda annaxwi kun xilsa beytika maa tahaara wa faaxiran fi lilmi bilmahaara wallahu yaqdi fi l umuuri zahira laka bi man yashfau inda al axira muhammadun salla alayhi llahu musalliman maa qiila rabullah mu ne gannaaw bàyyi tontu ko ne maa ngi sant maa ngi gërëm maa ngi ñaanal doom ji ci lu feeñ ak lu nëbb muy Baaba Lamin mu ne raditu anka man gërëm naa gërëm naa la wa xamidtul baaqi te sant naa yàlla ci ni nga mel mu ne laa zilta najli fi ximaahul waaqi yàlla boo mu yàlla na yàlla saxal la nga nekk sama doom dëgg-dëgg dégg nga nekk sama doom ci aar yàlla boo xam ne day sax dëppet mu ne iihi ayaa bunayya iihi góorgóorlul yow sama doom unxu nax wi doxal jëm ci man maanaam góorgóorlul nuru nuru ma na nga goreel xam-xamu sharia waaye nag nanga nga goreel xam-xamu naxwu mu ne li ma lay digal moom mooy nga sax ci sa néeg sa kër bul di génn lu bari ànd ak laab nag ànd ak set boole kook nag di eh, ànd ak rëj rëjloo ci xam-xam ànd ak mun ko dëgg-dëgg boole kook rëj rëjoo xam-xam ba pare nga am ci eh, mustawa am ci niveau boo xam ne dana tax ku la gis rek fàttaliku ma mun na nag yàlla nag mi nga xam ne mooy buur maa ngi koy ñaan mu mu moom mi nga xam ne mooy àtte zahir yàlla na la dénk dencal yow it bu rafet ba nga ku la gis gis lu baax waaye tamit yàlla na yàlla na la may ràmm ak yenent bi sallallahu alayhi wa ci àllaaxira moom mi nga xam ne mooy sang mindee fii maa ngi julli ci moom tànk jaam mi ngi wax yàlla mooy sama buur baaba wax ma ne bés ñu toog ñu ne kenn laaj ko ne ko sëriñ bi lan moo tax doo génn lu bari mu ne man sama sëriñ sama waajur moom wax ma ne naa toog sama nekk moo tax nag bëgguma di génn damay toog rek sama kër kon xil sa baytika maa tahaara boobu noonu ànd ak laab moo tax moo tax tamit ci beneen bayti bi nga xam ne bàyyi ngi ci dénk njabootam ji dafa ne muhammadul aminu faqra il kutub muhammadul amin jàngal téere yi wala tubaali bi si waxa min arab te faale leneen lu dul téere yi baaba mu ne xëy na loolu moo tax ma ne bëgguma dara ci àdduna bi téere yi rek bëgg-bëgg Cheikh Ibrahim boobu nag moo tax moo dem balaw ci moom ba nga xam ne bu ñu boo gisee moom mu am milliard ak gis mu am million moo yem ci moom tey tey tey tey tey boo ko gisee ci loxoom boo ñëwee suba laajte ko ñu ne la jeex na parce que du ci tee dara moom li muy jëfee mooy li Baay wax ne man lu ma am jox ko yàlla lu ma soxla laaj ko am na sax benn léeb am na kenn ci ci xaritam yi wala remi tuddee na ko doom sax Tariq laa Laden la tudd milliardaire bu mag boobu mi ngi ñëw ci sëriñ bi bés na ko sëriñ bi damaa bëgg nga wax ma loo soxla baaba na ko yow loo am ma ne ko sëriñ bi ni ma laaj nii sax daf ma jàqal ndax man seconde bii rek diggante bi may laaj rek li dugg sama compte xaw ma ñaata la baaba na ko loo mënti am maa la ëppale mën na ko sëriñ bi firim loolu loolu moom lu mu mën a nekkee mën na ko yow xaalis nga am man ki la jox xaalis la am kan moo ëppale man ki la jox xaalis am kan moo ëppale kon nag noonu la Cheikh Mouhamadul Amin yaree njabootam gi ba nga xam ne njabootu roxo njabootu jëmm yépp luñ buñ nekkeek moom duñ xalaat àdduna duñ xalaat àdduna yàlla rek lañuy xalaat tudd yàlla ba ci liir yi ñoom na lañ min xale yu ndaw yi tudd yàlla la ñuy jàngee waxta wax ci kër gi ndax lan loolu yëpp ndonoog Cheikh Mouhamadul Amin la ndonoog Cheikh Mouhamadul Amin la mbëggeel ak Cheikh Amin bu sax la ba nit ñi mën koo gis ba pare eh, ju yi rafet ba nga xam ne dem na sax ba fi mu ne nii maanaam booy tudd baay sax day jooy booy tudd lu baax day jooy boo ko askanalee sax lu baax mu jooy loolu yëpp lu mu ciy wax nit ñi moom mooy ne lu ma mënti mel tamit liggéeyu baay la kon nag yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Ibrahim yàlla nañu yàlla fayal Cheikh yàlla guddal fan Cheikh Mouhamad Amin tamit yàggal ko fi lool bañ mun a def dara ci xidmaam ndax xam ne na ñun su njëriñ lottu na ci yëgg ci dayoom dëgg-dëgg waaye yàlla nañu yàlla dimbali ci yoon élégance bokk na baay yi nga xam ne maanaam bokk na ci doomu baay yi nga xam ne taalibe yi amul ci moom sango ñu gisee te it moom soo dégg sànce ngay voilà vraiment daal loolu taar bi la saa su nekk te aussi foofu lu kee xaw a méngale ak bàyyi ndax bàyyi moom it fonkoon xam nga Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu daf ñoo wax ne wa mahma taraani fa rasulu damiru kon saa yu ma gisee rek xamal ne bi mooy li nëbbu ci man mu ne inna jamalan gayra wajhi muhammadin mahaahu jamalul mustafa nafaahu jamalul mustafa wa mahaahu bépp rafetaay boo gis bu du rafetaay yenentu bi sallallahu alayhi rafetaay yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam na ko wax ci beneen bayti ne liñ ma liñ gis ci man ci lu baax rek hmm, du dara lu dul mu xam yenentu bi yàlla sallallahu alayhi wa ak rafetaayam bi fiñ ci man bàyyi mooma doon na loo doomam mbëggeel ak yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ko mbëggeel gi bu ko dénkee mbëggeel gi nag nit ki bu demee ba bëgg nit day jeex ci moom bu jeexee ci moom nag ma aatir moom la ñuy gis moo tax baaba nit mën koo gis gis taar gi waaye taar gi taaru lim dénk la taaru li nga xam ne moom la denc xam nga Oustaz Barham mos na ko wax Cheikh Hadj Abdoulaye ci benn euh, conférence mu ne ko sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi ànd ak yow ak li ànd ak yow ñi ànd ak ñëw nag ñépp xam nañ leen li ànd ak ñëw nag ku bëgg xam utile ku bëgg a xam utile ni ki noonu tamit nit boo demee ba bëgg yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam yow lu la gis dalay bëgg ndax yenentu bi ku ko bëgg bëgg yàlla ku bëgg yàlla yàlla dafay oo malaaka yi ci asamaan ne bëgg naa diw wax leen mbindeef yëpp ñu bëgg ko ba tax nga mën a gis kenn ci ndonoog Cheikh Ibrahim mu Cheikh Mouhamadul Amin xalifa Cheikh Mouhamadou Mahi gis nañ papa Cheikh gis nañ doomu baay yi nga xam ne Cheikh Nazir boo leen gisee rek yow taar gi ñu lay fàttali moo tax lépp may rafet ba tax benn jour sax ñu ngi koy tooñ ne ko sëriñ bi sañse nga dégg nga mu ne du ci yére bi du ci yére bi waaye nag mbëggeel gi nga xam ne moo nekk ci xol bi moo tax ku ko gis rek mbëggeel googu nga gis te yàlla bu bu bu bu bu la bëggee nekk la bu la nekkee nag nekk sa kanam nekk comme ni mu ko waxee ci xadis bi loolu bu feeñee ci doomi aadama foog nit ñi bëgg la solo gi nag ah ci ndonoog Cheikh Ibrahim bi la bokk ci ndonoog Cheikh Ibrahim bi la bokk eh, am na benn eh, bés Cheikh Xalifa Cheikh Mouhamed Mahi mi ngi ñu doon waxtaan mu ne bàyyi dafa rafetoon mu ne am na jigéen yoo xam ne bu Baye daan tëll sax ñoom ñëpp seen xol yi la ñuy laal ndax rafetaay gi mu ne nit ki noonu ñun loolu ñu ngi koy gis ci ñoom mu ngi ko gis ci Cheikh Mouhamadul Amin di ko gis ci frère mi euh, solu nag ah yan saay tamit yàlla day maye day maye mm, mbir mi mel noonu xam nga euh, moom dafay wax toujours mu ne solu kaalawu ni bàyyi sol ay kat ni bàyyi foog na yaay bàyyi doo bàyyi kenn du bàyyi waaye nag moom nit dan nit solu na gis loolu am na benn bés sax xam naa dañ doon dañoo toogoon di di liir chamailul muhammadiya jukko yonent bi sallallahu alayhi ak melokaanam ki doon liir bés boobu dafa liir benn bés yonent bi sallallahu alayhi génn am num solee benn manto toog am num farankulaaye subhanallah maanaam mu mel ni photocopie bi moo ñëwaat yére gi mu wax ne moom la soloon yére bu xonq la baaba sol yére bu xonq jubo mu ne yonent bi mi ngi teg loxoom ni farankulaay baaba teg loxoom ni farankulaay mel melokaan yi mu wax ci xadis bi yépp ñu gis ne baaba mi toog melokaan yooyu la jël saal bi ñi fa nekk ñëpp ëlbatiku di xool baaba waaye moom seetluwul sax ne li xew waaye loolu yépp ci mbëggeel ak jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa mbëggeel ak jeex ci yonent bi sallallahu alayhi eh, mbëggeel boobu nag moom mooy feeñ ba ci taaru yaram ba ci taaru eh, wax waxtaanam ba ci kàddoom ba nga xam ne loo dégg dafay neex ndax waxi xol lay wax te waxi xol bu jugee ci xol dugg ci xol dégg bu tuddee yàlla mu neex bu eh, solo génn mu neex bu solowul sax jël teg lu simple sax dangay ngay gis rafetaay gi loolu yëpp taar ak yenentu wi la taar ak Cheikh Ibrahim la taar ak ndono ak Cheikh Ibrahim gàmm gi ñëw na fekk ñu fi fekk ñu ci benn xaala fekk ku nekk ci station xëy na station spirituelle xëy na station euh, nu ñu dundee ak nit ñi seen xëy na fekk nañu ci ay jukko ñu ñorewoon ñu nettali ñu jukkook yonent bi ni mu meloon nettali ñu eh, nan la daan jëflanteek nit ñi nettali ñu lan la daan digal nit ñi nettali ñu lan la fi indi nettali ñu naka lañu war a mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbëggeelam nettali ñu tamit naka la nit war a xoolee boppam ba mun a askanee boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun a askanoo yonent bi sallallahu alayhi wa gi ñëw ñu fekkee ko ci jàmm mu jeex ñi ñi ñëwaat ci gàmmuwaar gi ñi def ko ba mu jeex tey dem na weer bi dem na dewen rek lañuy amaat gàmm waaye weer bi lim war a bàyyi ci taalibe yi mooy jukko yooyu nga jàng ak yarin yooyu nga jàng ak teggin yooyu nga jàng yan nga ci jël ba mën a soppee soppeeku yow ba nga xam ne moom ngay def yobbal ba dewen boo ñëwee doo soxla soppi yooyu mais yeneen jukko yu bees wala yeneen jukko yu nga xam ne moom lañu ñu war a defar wala yeneen jëfin yoo xam ne moom nga war a bàyyi moom ngay bàyyi waaye du loolu gàmmu loolu mooy gàmmu loolu mooy loolu mooy njëriñam loolu la war a contribuer ci dundu nit ki ñi ñëw dëkku Cheikh Ibrahim muy dëkk boo xam ne naar ba waxoon na ko nee na da ñëwal Madina lépp loo bëgg rek muy Madina lépp loo bëgg nag ci lépp la ci koom-koom ci am ci xam-xam ci bëgg yàlla ci njub ci jëriñ boo ñëwee fii nag nga dellu yóbboo yóbbal dëgg-dëgg sa dikk bi war nga ko xoolaat sa yóbbal nag li mu war a nekk mooy jukko yooyu ñu nettali la ci bàyyi ci yenentu bi ci Cheikhu Tijaan ci ñu baax ñi war nga koo yóbbaale bu nekkut na loo xam ne da koy defaree sa bopp sax war nga koo defaree ñi nga xam ne ñoom dikkuñu woon wala ñoo xam ne ñëwuñu woon loolu mooy dénkaane bi di dénk nit ñu gën a nag jàpp ci li fi Baye bàyyi gën a jàpp gën a góorgóorlu ci li fi Cheikh Ibrahim bàyyi ndax ñun amuñ lu dul baay te Baye radiyallahu anhu dafa baax ba nga xam ne amul lenn lu muy digle lu dul jiitu na ci amul lenn lu muy tere lu dul ne moo ko njëkk a bàyyi lépp lu digle nag ak lépp lu mu tere rek lu baax la lépp lu digle ak lépp lu mu tere lu baax la léegi nag ñun war nañ góor góorgóorlu ba xam di ndigalam yooyu yan la ma mun a mun ci émissé wu mun ci mun mun a bokk ci ñi nga xam ne dañuy topp ci yoonu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu à la lettre mu xool digil tereem yi tamit te du dara lu dul tere bàyyi ñu mun cee tamit defar suñ dund gi mun cee defaruwaat adduna ak àllaaxira ndax jamono ji li tuum mooy nekk taalibe baay bu dëggu ñëpp a ngi askanoo baay waaye ana taalibe baay bu dëggu comme ci jamono ñoom Seyda Ali la taalibe nekkoon euh, mercure lu mel ni mercure rouge gën a jafe gis mercure rouge suñ jamono ji nag kon war naa gën a tumuranke te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne jamono dana ñëw ki nga xam ne mooy gëm yàlla gëm bu wóor gëm bu sell te gi muy tee diinam yi dafay mel ni ku teexal ci digg teexam gi mu ne waaye jamono jooja nag bu ñëwee na ku nekk toppatoo boppam na ku nekk góorgóorlu ba yar boppam alayka bi xuwaysati nafsika léegi nag alayka bi xuwaysati nafsika boobu moom lañ toll ñun ci mbiru Cheikh Ibrahim te mbir boo gis ñu tabax rek dana jaar ci ñeenti marxala dana jaar ci tabax bi ki ko tabax xam na lim ci daj moo tax du ko mën sànq moo tax jamono bàyyi ak ñi wóoroon ñoom ñi sonnoon ak moom yu bari yi xew nii ñoom jamono jooju amutoon parce que ñoom xam nañ li bàyyi daj pour mu yegg foofu gannaaw ga mooy deuxième génération bi mooy ñi nga xam ne fekkee nañ tuuti ci coono maam yi ñooñu it mooy ñoom Seyd Ali ñoom mooy ñoom Xaaj Abdullahi Xalifa doom bàyyi yu mag yi nga xam ne muqaddam bàyyi yi nga xam ne fekkee nañ bàyyi fekkee nañ ci tuuti ñoom it ba tey da leen di gis ñi yaru yaru Cheikh Ibrahim troisième bi mooy troisième génération bi xam nañ ci tuuti mais des na dégg nga xam nañ ci tuuti mais des na dinañ jàpp ci affaire bi mais des na moom mooy troisième génération muqaddamu bàyyi yu yenn ñenn ñi nga xam ne ñoo digg doom doomi bàyyi setu bàyyi yi nga xam ne digg doom jamono ji nag ñun ci yem lañ nekk mu ne quatrième bi mbir mi day sànku ba nit ñi dañuy réeree mbir mi ba duñ xam coono yi mag ña dajoon ba affaire bi tabax mën na nag cycle bi boobu day tàmbaliwaat et eh, ma tàmbaliwaat delluwaat ci li di eh, eh, ki njëkk a tabax nekkoon wala mu sànku ba ilaa mi din yàlla nañu musal ci loolu bàyyi ñaanoon na ne dëkkam bi yàlla na sax di nekk dëkku jàmm di nekk ci dëkku njub yàlla na sax di nekk dëkku jàmm di nekk dëkku njub loolu lañuy ñuy ñaan ñu ñëpp ci làmmiñam ci làmmiñu alxalifa Cheikh Mouhamadul yi yàlla na yàlla guddal fanam yokk ko wér yàggal ko fi euh, lim sumb yëpp ak lim bëgg yëpp réaliser yàlla na ko yàlla def euh, Cheikh Mouhamadul Amin yàlla na yàlla guddal fanam yokk ko wér ak kàttan ba nga xam ne tamit lim bëggoon li bàyyi bëggoon ci moom yëpp dana am njabootu Cheikh Ibrahim yëpp yàlla yàlla sàmbu leen wattu leen aar leen Seyda Ruqayya ñi nga xam ne moom mooy mag ci doomu Cheikh Ibrahim yi ak rakkam yu jigéen yi ak rakkam yu góor yëpp yal na leen yàlla yàggal fi muqaddamu Cheikh Ibrahima yi yi fi nekk di liggéeyal Baay te dëggu ci yal yàlla dimbali bañ sax ci loola ila abadil abidina euh, euh, taalibe Baay yi nga xam ne tamit am na lu ñu réere yal na yàlla gindi leen bañ delluwaat ci li oote Baay gi ndax askanu ci Baay dafa am taxe boo xam ne moo war a ànd ak moom mooy nañ jub rek moo la war Baay waxoon nañu ne jamono lu mu yàqu yàqu yàqu am na ñoo xam ne waruñ cee bokk te loolu moom li mu ciy jublu mooy taalibe mii noonu lañu war a mel yal yàlla def loolu sàmm njabootu Cheikh Ibrahima njabootu rox yi njabootu jëm wattu leen aar leen lépp lu ñuy seddale ci kaw suuf yàlla ñu ci ëppale ba nga xam ne luñ bëgg a def ci Medina bàyyi ak li ko wër yàlla dana ko yombal wa ma dalika allah bi aziz di nuyu waa Senclic di ñaan yàlla yàlla def ba dem ba mu nekk tele ñu mën a toogaat ci plateau toog di ci waxtaan waxtaanee Cheikh Ibrahim waxtaanee góor ñu baax ñi eh, yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko def wa ma dalika àllahi bi azizin wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin